lii doyti na waar mbokki internet yi ñuy àndal ci seen rubrique faits divers yi tey dañuy dem ba diwaanu Mboro sur foofu day lu doy waar leen leen fas yéene indil ku ñuy wax kaa Camara moom day danoo njott ni moo taal néegub euh, locataire am bi maanaam soxna si nga xam ni luyee na ko ci këram ndax nag dafa soupçonné ni soxna sa dafa daal di héberger euh, gune gu jigéen guy jaay boppam. dut yooyu nag tax na ba dimbali na ko sax ndax ban demee ca yoon amul benn preuve bi confirmé ni moom moo taal néeg bi waaye moom mi nu njottu di kaa kamara teg nañu ko loxo daal di koy yóbbu chambre criminelle ndax nag euh, lañ koy toppe mooy incendie volontaire jël sa sañ-sañi bopp taal ab dëkkuwaay boo xam ni ay nit dañ cee fanaan moom moom nag ki ko tuumaal mooy locataire am ba ak euh, soxna sa mu hébergé mu jàpp ni soxna si day jaay boppam ndax waxtu wu nekk góor ñi dañuy baagante ca kër ga di dugg ka génn loola nag metti ko mu jàpp ni ak këram kenn du ci moy te kenn du ci def loo xam ni dëppawul ak ay bëgg-bëggam ba tax na avertir na leen maintes reprises gannaaw ba mu songook ñoom ab xeex nag ba noppi ca la ñëw daal di euh, def euh, daal di ca ñëw nag jigéen ñi daal di dugg ci seen néeg jékki-jékki néeg bay boy ñoom ñu génn daal di tuumaal waa ji ba gendarmerie teg ko loxo àtt nañu ko mbokk yi jox nañ ko acquittement renvoyé projet bi dinañ ci ñëw léegi ay ci ñu dem ci fee yi kaa Camara moom day li nga xam ni mooy juge chambre criminelle tribunal grande instance bu Thiès bis bu toppee ndigal li procureur jël boo sàggunu dañ koy daal di bàyyi ndax liñ koy toppee mooy menace de mort ak incendie volontaire menace de mort maanaam di fitnaal nit ki dinaa la rey dinaa la gaañ dinaa faat sa bakkan ak euh, taal barab boo xam ni nit ki dafa doon dallu loola noonu moo ne ci ab dossier ndax nag mbokk yi moom dañoo njott ni néegu locataire am bi di wuyoo ci turu F moom moo ko taal ndax dafa njott ni F dafa daal di dalal maanaam héberger benn euh, xale bu jigéen buy wuyoo ci turu Ecoli ëkkooli moomu nag dafa njott nii day jaay boppam maanaam jigéen la joo xam ni daal saa su góor yéegee ci kawam da koy fay moom loolu la njott ndax nee na ci këram gis na saa su nekk rek góor ñi nin fay baraj barajee di ñëw ku génn sa moroom ñëwaat dem na ba gis ef xamal ko daal ni ko ni ma gise daal mbir mi doy na waar bu ma doon sama sago daal ngeen jéem a xoolaat mbir yi bu baax a baax ndax nag euh, mënuma laa luye nga héberger xale bu jigéen te minute bu jot nit ñi ni ngi ñëw di dem loolu tey na sama xel loolu la wax ñi toog ci ay fan moom xale bu jigéen boobu guddeeg bëccëg mu commencé di recevoir ay góor mel ni kon waxi paa ba dafa nekk luy bëgg a dëggu paa bi nag njott ni moom kon xale bu jigéen bi est-ce que nekkul kuy jaay boppam ca la dem nag ca ka nga xam ne moo yor responsable kër gi di F Kayta nga xam ne lu toll ci juróom-ñaari at mi ngi dëkk ak paa bi ci jàmm ak salaam ñu xëy benn xale bu jigéen bu jugee ca ajag-jag ja école yi nar koo indil musiba mu daal di dem avertir ko ni ko euh, li ma gis ci sama kër gi day doyut sama xel ndax xale bu jigéen bi tout le temps maa ngi gis góor ñi dugg ak a génn te dëkk nga fi juróom-ñaari at loolu mëstaam li may gënal nag mooy nga libéré ko mu dem mu génn sama kër ci ni mu gën a gaawee dame bi daal di bañ loolu école yi moom itam continuer li nga xam ni moom lay def waxtu nekk rek ak góor gay ñëw paa bi bi mu demee nag ba nga xam ni mer na fut daa décidé boole leen ñoom ñaar génne leen këram ndax dafa jàpp ni sax ef kayta mi nga xam ni dëkk naa ak moom juróom-ñaari at complice la ci liñ soxna si di def ca la mere ba fut nag ñëwaat ni leen da ngeen génn sama kër ñaari soxna yi ñoom it bañ taxaw fii ñu taxaw eh, coow lu metti am nag ca la nag xeex ak ñoom menacé leen nag de mort ni leen nag dina taal kër gi néeg bi ngeen di fanaan dinaa ko taal ñooña toog mel ni lu ko tàngam lu daa di mel ni lu ko déggut benn guddi f kayta ak eh, xaritam bu jigéen boobu daal di dugg seen néeg tëdd bi ñu duggee quelques minutes après ñu gis ni néeg bi mu ngi boy ci kaw loolu lañu njot ni kon Ka Kamara moo boyal seenum néeg moo taal seenum néeg F Kayta ak euh, morom ma nag ni bërët jug bëgg a seen bakkan waaye mujj nañu nag défoncer porte ba ndax nee nañu waa ji dafa verrouiller porte yi dem bañ ko défoncer nag ca ñu daw daal di génn waaye seeni yére fekkewu ko ak seeni bagage ndax lépp ab doom la doon ginnaaw nag bi lakk gi amee ñoom ñaari soxna yooyu dañoo wuti ca gendarmerie bu Mboro plainte ka Camara la ñu wax nag mooy da leen doon menacé de mort ba taal mu nekk eh, ca la nag way takku der yi ñëw daal di jàpp ka Camara arrêté ko ci këram ci sukkandiku ci menace de mort bi ak incendie volontaire bi ca lañ ko def nag mandat de dépôt ca kaso bu Thiès maison d'arrêt et de correction bu Thiès àtte ko démb ca chambre criminelle bu tribunal grande estance bi nekk fii ci diwaanu Thiès moom góor googu di wuyee ci turu Ka di borom kër ga moom lañ ko tuumaal yépp weddi na ko ba mu set wicc nee na mësta taal ab néeg boo xam ni moom moo ko tabax ci xaalisam di ko luye rawatina ak këram nee na amul sañ-sañ boobu te xol boobu nekkul ci moom moom taalut mu ni nan laa mën a taxawalee moom mooy wax ci kanamu àttekat yi nan laa mën a taxawalee samay bâtiment def ci samay néeg mu lew ma doom di sama xaalis ma liggéey ko ma wëlbatiku jël néeg boobu di ko taal nee na ñoom ci wàllu boppam ñoom ñaari jigéen ñi ñoo boyal seenu néeg ba pare bëgg koo tuumaal bëgg koo teg gàcce waaye amul benn yoon boo xam ni jël na brin almet ak biteelub essence am wuuti ci néeg ba leen ba nu tëddi nelaw mu leen di taal nee na moom bu ko doon def du leen luyee te bu ko doon def itam du tabax këram mu ni waat ay relation yu amoon solo laa amoon ak F Kayta dëkk nañ juróom-ñaari at mësu ñoo sekk ay jafe-jafe jàmm ak salaam dama dama dem ba jàppeetuñ ko sax locataire mais ku bokk ci ñun lañ ko jàppe ci sunu famille waaye ginnaaw nag ba ëkkoli ñëwee ci la lépp jaxasoo ndax nag ëkkoli comportement bi mu duggee sama kër neexuma te mësuma koo xam te mësuma koo dund ci sama àdduna te sama njaboot itam xamuñu lool kon bu defee loolu man dinaa tàkk ci kawam wax moom FK Keita mi ma luye ni ko carrément kii nga ma indil li muy def bëgguma ko mu insister ma nar leen a boole génne ñu insister nit nag mënut lu dut euh, def li nga xam ni mooy xol bu jeex waaye nag taal googu ñuy wax moom jugewul ci man lii ma wër ba wër daal ñëw naa fekk leen ma entreprise ni leen yéen ñaar di ngeen génn sama kër ak façon boo leen ko génne waaye mënatuma dëkkoog yéen liyeew ma leen nee na depuis bi nga xamee ni soxna si installé na ba pare ñu jox ko néeg chaque jour muy recevoir ay góor ci laa ñëw ni F Kayta mun a génn sama kër mu bañ nee na lii la problème bi demee nii la problème bi commencé wax naa ko mu génn sama kër nee naa ko bu mu fa fanaan waaye mësuma leen ni naa taal seenu néeg nekkuma benn yoon ki nga xam ne moo ko def te am naa gàcc am naa kersa loolu way takku der yi fekk ma ba sama biir kër di ma jàpp ci loo xam ni dëgg la man maa ne cax ci dëgg ndax maa leen luye gisuma ci ñoom comportement bu baax ma am sañ-sañ taxaw wax ak ñoom ñu ñëw ni dañ may jàpp di ma yóbbu ci yoon ba tey jii ñu man maa taxawal ci tribunal bi yile déclaration la def ndaw sa ba ñu ko woowee moom ëkkol yi nga xam ne ci parti civile bi la bokk moom la mu wax mooy laata ñu leen di annoncé ni dinañ taal néeg bi nee na Ka Kamara ñëw na fa xeex ak ñoom ba ni sipp menacé leen ni leen dina taal néeg bi daal di dem nee na bis boobu dafa màndi woon maanaam dafa naanoon sung ba mënul dox nee na ca leen attaqué songook ñoom xeex ni leen dina leen rey guddi gi nag bi mu jotee ñoom jëluñu benn yoon au sérieux li waa ji doon wax parce que dañoo jàpp ni xolam a jeex aw yaramam tàng nee na ba ñu duggee nag seen néeg ca la daal di ñëw verrouiller porte yi daal di taal néeg bi ñoom ñu jekki-jekki gis ni bunt bi verrouillé nañ ko te amuñu benn solution ñu yoo ko wàll fu ne gisuñu kenn ca ñu mbëkkante ba bunt ba ubbiku ñu daw ba fa seeni bagage bagage yooyu nag daa tàkk ba noonu doom nee na nii la mbir mi demee ndax nag dañoo coincé sax ci porte bi waaye dañ ko mujj défoncé ngir sauver seen bakkan lii la xale bi jigéen bi nettali procureur de la république ni naam lakk gi am na waaye kenn mënta xam kan mooy responsable bi amul benn information bu mën a judiciaire bu mën a prouver que ni kaa Camara moo taal moo leen taal bu nu sukkandikoo ci représentant ministère publique bi moom nee na amul benn élément buy prouver que ni Ka Kamara moo taal seen néeg pile ci kaw loolu acquittement lañ koy jox ndax nag dañu jàpp ni bénéfice du doute la waaye mbir mi mbokk yi yóbbu nañ ko fas yéene koo délibéré ngir vide dossier bi le 26 mars 2024 kon le 26 mars 2024 la ñuy ñëwaat ñu vide dossier bi xam fan la wànneen du mujj ak ay gëtam kon mbokk yi fee yaa ngi nii mu nekk fee yu doy waar yoo xam ni amee na ca Mboro sur benn góor gu tabaxu këram ba mu yegg. luye ko ab soxna bu nuy wax F mu dëkk fa juróom-ñaari at dëkkinu rafet ñu jekki-jekki mu indi xale bu jigéen buy wuyoo ci turu ëkkoli ëkkoli moomu nag guddi gu yàlla sàkk ak bëccëg muy jël ay góor di indi ci kërug jàmbur paa ba njott ni day jaay boppam ndax pile comportement jigéen juy jaay boppam rek kay taxawe noonu mu mer ba futt bëgg leen a génne ñu coow moom ba seenum nekk tàkk seeni yére jeex tàkk ñu dem ak moom ci yoon ba àtt nañ leen dégg ngeen fee bi mu doy waar nin leen ko waxee ci toolu baykat yi le nekk ci dëkk kaw bu ñuy wax Lobali Lobali nag mi ngi nekk ci arrondissement Orkodiéré foofu ci altine ji xeex bu mette métte metti bari loolu deret ju fa génn moo fa am ci ñaari nit yoo xam ni ñoo dëkk ci boobu dëkk ab cultivateur maanaam baykat buy wuyoo ci turu kaa dikko ak guddi la daal di bett ab dëkkandoom buy wuyoo ci turu M ci ab toolam muy roñ li nga xam ne moo di ab njiwoom jëm ci wàllu mbokk ak ay xeetu xuluñe toolu mbokk ak i xuluñe maanaam toolu maïs ak i la leen la la bett waaja waajee def jëf ju ni ñaaw moom kaa dikkoo ñu songoo xeex ba nu songoo xeex emm ba ndekete ba nga xamee ni waaja jekku na ko dafa ni ruset jaaseem waddal ñeenti baaraam ya ñeenti baaraam yooyu nag lamul kii daf euh, soupçonné waa ji ni moom mooy sàcc alalam bis boobu mbokk yi bi vingt deux heures jotee nga xam ni Kadiko pare na ak reeram ca këram pare ay julleem ak ki naafilaam dani daal tey bala may tëdd faaw ma dem xooli ki nga xam ni saa su nekk rek moom may wuutu di ma def jëf ci ñaaw ji te waxtu wu ne maa ngi ci tool bi sonn di bàyyeeka roose ak lu ne ma dugg ci jàpp ni war naa ko mën a jaay li ma fi bay di ko dundale sama njaboot ak di ci dimbali jaamu yàlla yi nga xam ni seen wërsëg ci ci man lañ ko gàll ab sàmba booy bu tekkiwul dara coono yi may daj fii ak financement yi may def yépp mu bëgg a ñëw jariñoo li nga xam ne moom laay ji du ci suturloo duma ko nangu tela meebe jaaseem daa di def ci eh, kiiwam daa di wuti nag tool ba bi mu ñëwee li mu njëkk a constaté benn pirogue la gis ñu daal di koy takk ci benn poto ci dex gi ci pirogue boobu nag sorewul dara ak tool bi maanaam ak gaal gaal gi waa ji daal di ñëw gis ca ñeenti saak yoo xam ni ma nga duy mboq ba fees dell ak i xuluñe tegu ci baat moom Kadiko dafa daal di jël ndànk gaal gi daal di koy déplacer yóbbuwaat ko ca beneen côté boo xam ne waa ji bu jàkkaarloo moom ci tool bi bu ne yund du mën a raw bi mu defee loolu nag ba pare yóbbu ko ci beneen côté boo xam ni xaw naa am distance ak tool bi daal di koy yeew loolu lépp waa ji mi ngi ci biir tool bi di chargé ay yeneen saaku pour yenu ko yebaat ci gaal gi boole ñeenti saaku yi nga xam ni yëpp na ko moom day teel a sàcc ndax xam naa boo moytu vingt et une heures lay jug ndax waa ji vingt heures vingt deux heures la la ko fekk ci tool bi bi loolu amee mbokki internet yi ñuy déglu waa ji daal di déplacé gaal gi yeew ko bi mu ko yeewee dafa ñëwaat ndànk ak fekk boobu mi ngi làmp torche ci loxo bi dafa ñëwaat ndànk dugg ba ci biir tool bi bi mu nee kii kan la rek em ba daal di siggi fekk boobu mi ngi remplir yeneen saako waa ji ne ko tay tors bi ba xàmmee ko xam ne diw la te xam na fa mu bàyyi ko waa ji daldi di mer ba fut xale bu góor bi ñaar fukki at ak juróom-ñaar la boroom tool bi bi mu ko ne tàyyi làmp bi ni ko lan nga yu def fii xam nga yow kon li may fi bàyyi yépp di dem su ma ñëwee lu manqué ndekete yow la ndekete yow yaa may def jëf ju ñaaw ji gis nga ma toog nga nekk jeune sa yaram jéemoo ci dara man ma dem di bàyyantoo ko dem di ñëw ndekete yaa ngi may topp xaar ba samay récolte ñor nga jàpp ni war nga koo jariñoo du mën a yombe noonu ndax nag amul benn sañ-sañ wala benn force boo may jaay doole joo may jaay ba war maa mën a rëcc fii ba mu waxee loolu sàcc bi xam ni jàpp nañu ko mu bëgg raw nag ni bërët daw bëgg bàyyi saaku yi nga xam ni jot na koo chargé daw ca gaal ga ngir looj gaal gi génn dex gi même bu fekkee sax waa ji mënu koo dab mu yóbbu li nga xam ne sàcc na ko ba daal di raw waa ji ni ko du fi dal ndax gaal gi nga xam ni yëpp eh, yeew nga ko ba yëpp ca ñeenti saako déplacé naa ko foo xam ne mënatoo maarit faaw ñu jàkkaarloo ma doon laa yóbbu ci yoon jàkkaarloo bi nag dinga ma gaañ wala ma gaañ la wala ñu dem ci yoon waa ji daa di xam ni nag affaire am yàqu na moom sàcc bi. ci kaw loolu ca la xool amul benn pexe waa ji ni ko kut ko kut tey di nga di dinaa dinaa la jubbante ba bu ëllëgee dootoo def lu ni mel bu ëllëgee boo gisee waxuma la ab tool may alali jàmb doo ci teg sa loxo ba di ko yaakaar ñu commencé kenn ku ne di sànnante ay kàddu parce que waa ji amatu solution mënatut a daw moo waa ji rek ne ci biir tool bi te itam mënatut daw ñu commencé kenn ku nekk di di génne saaga ay saaga ay tëkku seen yaram tàmbalee tàng ba seen yaram tàngee nag saaga yooyu nag dafa mujj jur ab songoo xeex ñu daal songoo tipp tipp kurfee ñi dalante kurfee feeñi dalante comme kii moo gën a féete ndaw moom emm eh, ba toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar ca la ruset paakaam daal di koy bojj baykat bi ci loxo bi Gadiko toll ci 47 ans ñeent fukki at ak juróom-ñaar bi mu ko bojjee ci loxo bi mu am ci gaañu gaañu bu metti taxul nag mu bàyyi yaramam gën a tàng moom itam ñuy songoo di songoo xeex bi gën a metti ca leen di ruseet jaaseem rek dagg ñeenti baaraamu euh, sàcc bi tipp tipp tipp tipp ñeent yépp ni waddeet ci suuf mu jàpp nag ni rey na ko ndax da koo dagg rek xam naa sàcc bi ni dër xëm mu jàpp ne rey na ko ca la nga nag kaa dikkoo daal di génn tool ba ba fa sa waay mu tëdd ba mu ko fa bàyyee mu daal di jël gaal gi moom looj ko daal di wuti ca post de santé ba ne ca dëkk ba ngir faju ji mais bi mu toogee tuuti gis ni sàcc bi rejoindre na ko ci poste de santé bi moom itam di faju ji fees dell nag yaram wépp takk ripp waaw lépp di deret moom itam par la suite ca la ndekete yoo sàcc bi waa dëkk ba ñenn ña doon traversé ñoo dégg xam naa muy mëmm ñu dugg ci tool bi daal di koy yenu yóbbu hôpital ñoo ñoo ko indi ndax dañ doon traversé doon dem ci yeneen dëkk kaw yi nga xam ni féetu naag dëkk booba ca leen nu koy yenoo ñoom itam daal di koy jébbal kër docteur ci poste de santé bi ñu koy indi ñu ngi fekk boroom tool bi ñu koy fàcc moom mi nu dagg ñeenti baaraamam itam indi nañ ko ñoom ñaan ñëpp ñu yóbbu leen ay soins intensifs ndax ay gaañu gaañu yu metti la ñu am ñoom ñaan nag kenn ku ci nekk am nga certificat médical boo xam ne di nga toog quarante cinq jours euh, pour M Ba dina toog quarante cinq jours maanaam ñeent fukki fan ak juróom moom mi nga xam ni bett nañ ko ci tool bi muy sàcc. borom tool bi wuyoo ci turu Kadiko moom weer lay toog di faju ak dem di ñëw. ñaar ñoom ñëpp nag kenn ku ne am nga certificat médical ba nga xamee ne nag ña ngay faju kenn ku ne da ngaa déposé plainte ca brigade gendarmerie bu seem daal di koy dëxëñ coup et blessure volontaire réciproque gaañante kenn ku ci nekk ci kanamu enket kat yi ñoom xam nañ ni eh, songoob xeex am na gaañante bi am na kon liñ leen di tuumaal ñoom ñoo ko def Kadiko moom eh, nee da doon Euh, fippu ndax dafa jàpp ab sàcc ci biir toolam ndax day xëy di bàyyi ba ngoon jot mu ñibbi këram dëgg te yoo xale bi mi ngi koy xool ba mu demee mu koy roñ di ko roñ ba benn jour bi mu ñëwee bi mu koy jàpp da ko bett da koo bett ñu songoo xeex ndax alalam la fa ci doon ci lu ak njabootam mu jàpp ni moo ko ku ko gën a bëgg nee na nii la mbir mi demee bi nu songoo xeex gaañ na ko gaañ na ko kenn ku ne gaañ nga sa moroom m ba ni moom waa ji dafa acharné wu ci kawam maanaam dafa jékki-jékki rek sible ko donte moom doon na sàcc ay tooli jàmbur doon jël seeni mbokk ak seeni léjum waaye moom ab toolam dugg fa moom loolu la wax nee na nag yeneen tool doon na ko sàcc foofu ci dëkk kaw boobu di lobal yi bi nga xamee ni nag seen dure légal garde à jeex na kaadikoo mi nga xam ni boroom kër la te am na lu toll ci fukki bant maanaam dix enfants ak M ba mi nga xam ne ab célibataire la amut njaboot ñoom ñaan ñëpp defeere nañ leen àllarba ji ca parquet bu maatam fas yéene na rek def leen man mandat de déppo kon nag mbokk yi feebaa ngi noonu mu nekk fee bu doy waar jenn góor bay ab toolam ba mu yegg war koo jariñoo ab sàmba booy ñëw di ko roñ ñu songoo xeex gaañante ba ñoom ñaan ñëpp teg nañ leen loxo